الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokk yi topp seen site mouslih tv point com seen mbokkam daara Aliou Cissé mu am mbégte di leen nuyu te di leen ziyaara waaye di leen ndokkeel ci weeru mag wi nga xam ne moom lañ dugg muy weeru koor mu nekk woo xam ne weeru xéewal la waaye di weeru ngëneel nga xam ne moom la yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne awaluhu rahma mu ne fukki yi njëkk ci fukki guddi yi njëkk ci weer wi yërmande la waaye naka noonu wa awsatuhu maghfira waaye naka noonu ci digg bi njéggalal yàlla la waaye naka noonu wa axiruhu atqun min annaar naka noonu bu mujj bi muy fukki mujj yi a la ci safara mu nekk weer woo xam ne weer la wu bari ngëneel mu nekk loo xam ne kado la boo xam ne man wax yàlla da ko may xeetu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne guddi gu rëy goog gu màgg goog nga xam ne moom la borom bi di wax naan inna anzalnaahu fi laylatul qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahri guddi googu nga xam ne borom bi moo wax ne moo gën junney weer moo ko gën nag li nga gënee kenn xamut ci weer wi la nekk ndax yonent yàlla Muhammad wax nañu dee leen ko seet ci fukki yi mujjee waaye nekk noonu ci bisi tool yi mu nekk weer woo xam ne daal weer bu bëri ngëneel la ñu ngi ciy ndokkeel mboolem fu jullit nekk ci àdduna bi rek di wax ne di ñaan yàlla tamit lépp loo xam ne nekk na ci weer yi ci ngëneel yàlla na ko yàlla sëmbartal ci suñu kaw ci darajee na ko noonu nag ñu fas ñu fas yéene ñëw ak yéen comme ni ko tàggoo woon ci émission yi mu jéem def mooy di fas yéene ñëw ak yéen tey ci ah, majaalisul sawm maanaam jotaay la boo xam ne dafay jàngal jëm ci wàllu koor ndax ni leen ko waxee woon rek bi ñu fi mujj mooy li kulli maqaamin maqaal ba ah, jamono bu nekk rek wala jotaay bu nekk rek ak lañ fa war a wax te xam ngeen ne koor bu ñëwee. Ah, jamono jaadu na pour ñu waxtaanee ko ndax bëri na yoo xam ne ay sew sew yoo xam ne dafa nekk ci biir waaye ñu bëgg koo topp ak yéen nag ci téere bi ñu tuddee Risaala Ibn Abi Zaydin al-Xayrawaani yu waaye naka noonu ñu bëgg a toppante yéen ci bunt bi nga xam ne moom la tuddee baabu fi sawmi mooy bunt bi nga xam ne daf ciy jàngale lu jëm ci wàllu koor kon foofu la ñu war a commencé tey mu ne baabun li ab bunt la fi mi mu ne lii bunt la boobu xam ne dafay jàngale lu jëm ci wàllu koora mu ne wa sawmu shahru ramadaana woor weeru koor mu ne fardun faridatun farata la nee na woor weeru koor daal farata la yàlla moo ko farataal ci jaam ñi moom nga dégg muy wax ci suratul baqara na yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun moom yàlla daal nee na moo farataal ci ñun a ah, weeru koor waaye naka noonu comme ni ko farataalee ci mboolem xeet yi nga xam ne ñoo ñu fi jiitoon waaye nag ngir ñu jëlee ci lan ngir buñ ci euh, sooboo ba pare buñ ci génnee ñu jëlee ci ak ragal yàlla waaye naka noonu nee na ay yaaman maadudaat ay bis la yoo xam ne bëriwut ndax lépp li ñuy lim rek bëriwut kon mi ngi noonu farataal yàlla ko farataal naka noonu yonent yàlla Muhammad tamit jàngale nga ci xadis nga xam ne moom bokk na ci arkaanul euh, islam ci ponki islam la bokk moom koor ndax xadis ba siiw na بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان kon moom tamit kenn la ci ponki islam yi moom koor mu nekk ponk boo xam ne ponk bu ah, yitteel la nga mat di sonne la waaye xam li ci nekk ak ngëneel li ci nekk kon mi ngi noonu nee na wa sawmu shahru ramadana woor weeru koor nee na faridatun mu ne yusaamu def na woor kañ la ñu woor mu ne li ruyatihi ci gisugu weer yi dañuy woor waaye kañ la ñuy woor mooy bu ñu gisee weer wi bu ñu gisee weer wi daal ah ci leen war a woor waaye naka noonu wa yuftaru def na dog naka noonu li ru'yatihi ci buñ ko gisaatee bu ñu laa ñoo woor daal dañoo war a gis weer waaye naka noonu bu ñuy woor tamit daa war a fekk ñu gis weer ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ne suumu li ru'yati waaye wa aftiru li ru'yati fa in xumma aleykum fa akmilu iddata sobaana salaasina nee na daal na woor dee leen woor bu ngeen gisee weer waaye naka noon bu ngeen di wori tamit da ngeen bàyyi ba gis weer waaye nee na bu dee yàlla dogal na nag weeru Saabaan nekk na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu séentu gisuñ dara amaana dafa niis amaana daal asamaan ti neexut ba gisuñ ko yéen yàlla moo xam ne fa in xum ma la wax bu dee dafa yiiru maanaam dafa nëbbatu amaana mi ngi fi de mais dafa yiiru ba mënuñ koo gis yéen yàlla moo xam ne fa akmilu iddata Saabaana salaasina boobaa nañ mu nekk fanweeri fan buñ xëyee door a woor ndax lii muur moom amaana mi ngi fi waaye amaana asamaan si moo neexut wala ama asamaan si moo lëndëm ba mënuñ koo teg suñu bët yonent yàlla Muhammad neen su boobaa nekkoon nañ def saabaan muy fanweeri fan boobaa ñu bu ñu xëyee ca bis ba ca topp rek boobaa ñu daal di woor kon daal mi ngi noonu kon da balaa ñoo woor dañoo war a gis weer waaye naka noonu balaa ñoo wari naka noonu dañoo war a gis weer moo tax mu ne wa yuftaru def na dog def na gori li ru'yat yi ci gisug weer kaana nekk na salaasina yowman moo xam faneeri fan la aw tisaata wa ashrina yowman wala mu nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent waaye nee na fa in xumma bu dee dafa yiilu maanaam dafa lëndëm wala asamaan si neexul dafa niis ba as ba weer yiiru ba mënuñ koo gis mu ne fal yu addu nañ lim kon salaasina yowman min xurrati shahri allati qablahu daal weer wu ko di saabaan kon nañ ko def muy faneeri fan boobaa nag ñu xëyee ca bis ba ca topp rek ñu daal di woor loolu la jàngalee moo tax mu ne summa yu saamu def na woor summa yu saamu def na woor mu ne naka zaalika naka noonu na fil fitri bu dee ci dog la maanaam bu dee ci woor yi naka noonu noonu lañ koy def moom tamit buñ seen too gisuñ dara ñu ko muy fanweer ndax cosaanal weer moom ñaar fukki fan ak juróom la cosaanal weer ñaar fukki fan ñeent la moo tax mu ne wayu bayitu siyaama nag def na fanaanoo koor fi awwalihi ci njëlbeenal guddi ga maanaam keroog bañ séentoo ba ne gis nañ weer keroog nga war a dugal sa yéene na fas naa yéene woor li des fas yéene woor weer wi yëpp waaye naka noonu nee na walay sa alayhi déet mu lay war sax albayaatu fi baqiyatihi jarul nag sax guddi sax nga naan xaaral ma yéene waat ak nangam na bépp koor goo xam ne daal koor gi toftaloo la benn yéene boo ko yéenee fas naa yéene woor weer wi rek doy na sëkk. waaye jërul tamit chaque jour nga xam ne nga naan may beesalaat ak nangam ak nangam nee na boobaa du ko jar waaye naka noonee wa yutimmu siyaama da ngay matale koor ilal layli ba guddi mooy ba so boo xëyee daal fa yar nga jàpp koor waaye da nga koy continuer ba guddi mooy maanaam ba jant so waaye nee na wa mina sunnati bokk na ci sunna taajilul fitri mooy gaaw a dog bokk na ci sunna nee na gaaw a dog waaye naka noonu wa taxiru suxuri ak yéex xëdd nee na bokk na ci sunna daal nee na mooy gaaw a dog waaye naka noonu ak a yéex xëdd ba tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet duñ dañ mukk di nekk ci yiw duñ dañ mukk di nekk ci xéewal feek ñi ngi gaaw dog waaye naka noonu di yéex xëdd waaye nag buñ la wax gaaw a dog nga dog ko timis jotut waaye tamit buñ la wax yéex a xëdd nga bàyyi bañ salaatu pare nga damay xëdd déedéet ndax ah, yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa a ah, jëlee nañ ci kii jëlee ci ah Zayd ibn Saabit radiyallahu anhu mu jël si yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na neen tasaxarna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam summa xumna ila salaati fa qiila ñu kam kaana qadruhuma mu ne qaala qadru xamsina ayatin jëleen Zayd ibn Saabit mu ne moom de xëdd na ak yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biñ paree ñu jug dem julli ji bi ko saxaaba yi laajee bi ngeen xëddee ak fi ngeen jullee ñaata temps la def mu ne kem lu toll rek juróom fukki aya maanaam comme jàng moo xam ne yéexut waaye gaawul ba ëpp nga jàng ci juróom fukki aaya boobaa ne diggante distance bi noonu la toll waaye bul dégg ñu da nga yéex a xëdd nga bàyyi bañ bañ nodd nga da ngay door a xëdd déere bul def loolu wan loolu la Zayd ibn Saabit wax waa mi ngi noonu waaye tamit naka noonu na ngeen gaaw a en dog naa leen te yàlla Muhammad nee na aw xeetam duñ dañ ci nekk ci xéewal mukk fekk ñi gaaw a dog waaye bu ñu wax gaaw a dog tamit nag nga dog da timis jotut na mi ngi noonu waaye nee na wa in sàkka képp kuy sikki sàkka fil fajar yi ci fajar jot na wala jotut da ngaa yeewu yow xamoo ndax fajar jot na wala jotut yaa ngi ciy sikki sàkka nee na fa laa yàkkul lekk waaw nee yaa ngi sikki sàkka ndax xamoo ba fu heure bi toll nee na fa laa yàkkul lekk waaye nag noonu nee na wala yu saamu deefut wor yow mu sàkka bisu sikki sàkka li yuxtaata bihi min ramadan yow daal nee na bisu sikki sàkka nee na kenn du ko woor loolu mooy lan amaana seentu neen biñ séentoo gisuñ dara wala bi ñu séentoo gisaguñ yow daa nga ne nga bëgg lu yomb noonu ndax en tout man yéene bu feeñee baax na bu feeñee woor naa bu feeñul woor naa loolu du doy nee na bis bu mel noonu kenn du ko woor boo ko wooree tamit daa du ja du du nekk koor moo tax nee na kenn doo fa woor bis boo xam ne bis ci yow nga ne daal moom bu dee suba koor la man alhamdulilah yéene naa waaye naka noonu bu dee wóorul tamit def naa loolu du doy nee na loolu la bëgg a rek kon daal balaa ngaa mën a yéene koor day fekk ñu gis weer yaa ngi dégg moo tax mu ne wa man saamahu képp koo xam ne wooree na ko comme nii mu ko waxee nii bu feeñee baax na bu feeñul woor naa nee na képp ku ko defee nii lam yujzihi du ko day mu ne wa in waafaqahu sax mina ramadaan donte bi ñu xëyee sax bis boobu ci koor la bokk waaye bi nga yéene booba gisaguñ weer waaye nga ne man bu kiyee baax na bu kiiwut baax na boobaa nee na bis boobu du doy waaye naka naka noonu mu ne wali man saa képp comme neex nag sawmuhu tatawwaan comme neex nag nga def ko si coobar rek na daal en tout cas man yéene naa ko def naafel loolu la dagan na waaye nag naan bu bu dee suba koor la man am naa ko bu dee du koor ma def ko naafila loolu moom du jaadu ah du jaadu waaye bu la neexee daal nga def ko ngir tatawaan mooy nga def ko ngir coobare def ko ngir naafila loolu daal moom dagan na an yafan la mu ne waa man asbaxa képp ku xëy képp ku yeewu falam yakul te lekkut walam yashrab te naanut bi nga xëyee daal en tout cas yow lekk goo naanu goo summa tabayyana lahu topp mu wóor la na anna zalika al yawma naka bis bii bis bi nga xëy ni lekk mina ramadaani ci weeru koor la bokk amaana yow jutoo woon xibaar ne weer feeñ na nga xëy lekkoo naanoo bi nga xëyee gis nit ñi ne tey koor la kon boobaa lam yu gis du la doy bis boobu du la doy de waaye nag wal yum si ko da ngay jàpp anil akli ci bàyyi lekk fii baqiyati yawmihi des sa bis bi waaye nag boo yeewoo xamoo na koor ah, commencé na nga yeewu fekk ni ngi jàpp koor yow tamit da ngay continuer a ànd na ñoom doo lekk doo doo naan waaye bis boobu nag da koy fay wa yaqdihi da nga koy fay naka noonu mu ne wa isa qadima al musaafiru bu ñibsee ki nga xam ne dafa tukki woon naka noonu muftiran te fekk dafa tukki woon tukki bu mat en distance 70 kilomètres ba taxoon mu war a dagg koor aw taharatil xaaidi wala koo xam ne dafa gisoon régal ah moom jigéen dem ba bëccëg régal ba arrêté naxaaram fa lahuma ñeel la ñoom ñaar akalu fi baqiyatihima fi baqiyati ma ñoom ñaar ñu daal li seen bis ñoom ñaar mën nañ koo lekk mën nañ koo naan moo ki nga xam ne dafa tukki woon ñib si te tukki ma daganoon naa waa ñi dagu koor ndax borom bi moo ñu ko may wa faman kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar képp ko xam da ngay tukki wala nga feebar mën ngaa dagg bu koor nga jàllee nga fay bi si nga xam ne moom nga daggoon waaye ki nga xam ne nag tukki woon na ñib si ci bëccëg waaye naka noonu ak jigéen ji nga xam ne dafa gisoon régal ba bëccëg régal ba arrêté mu ñëw ñoom ñaar ñoon nag li des ci bis bi bu leen neexee ñu lekk ñoom ñaar may na ñu lekk mu ne wa man aftara képp ko dog fii mutatawian ci koor ah, coobarewu amidan te fekk moo ko tey aw saafara fii wala mu tukki woon fa aftara li safarihi mu daggoon ngir en ah, tukki mu tukki fa alayhi qadaawu ñoom ñaar ñun nag bu ñib see nee na ah dañuy fay bis yi nga xam ne moom leen ah, daggoon xam naa kon ñu ngi ñëw doyla lool muy nekk suñu dars mu njëkk buñ fi dellusee incha allah continuer dars bi di jaajëfal mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci site bi dina wax ne ñu ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen soññi ngeen wéy di abonné suñu site di wax ne kon ñu ngi noonu loolu andi leen tey ci jotaayu majalisul sawmu ñu ngi noonu kon di jaajëfal suñ mbokk mi nekk ci cam cameraman bi mooy suñ baara ñu koy jaajëfal bu baax naka noonu di wax ne ki nekkoon ak yen ci kàddu gi seen mbokkam daara la Aliou Cissé di wax ne in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh